jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbegte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne euh, di leen jaajëfal fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew gis nañ ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a koy ànd ak wasaare. gis nañ yéene yu rafet yi ngeen am ci ñoom gis nañ ñaani lépp lu ngeen ñu ñaanal yàlla nañu ko suñu borom boole def ko ci réew mi ak mboolem réew jullit tey nag ñu toog kenn koo xamante ne ku yàlla baaxal la ku yàlla may xam-xam la gaa gis ngeen bi ma fi ñëwee ci doxoon ci diggante komba Franc ak Bébé Saloum Modou ak euh, kii di Ama Balde dégg ngeen lim ñu ci waxoon ne ñu combat Modou ak Ama Balde du am ci at bi xanaa beneen at lay am waaye at bii du ci am ba mu koy wax boobu xalaatuñu woon ni euh, combat bi dina toll foofu ba promoteur bi di Luc Nicolaï organiser ko dina nekk ci loxo yoon euh, xalaatuñu woon ni feebar bii di coronavirus bi dina dugg ci réew mi ba ba arrêté activité yu bari waaye ku ci nekk ak li la yàlla may kooku nag mooy sëñ moor ñu fekk si waat ko Malika fii ñu ko fekk ci këram waaye li waral fekk bi mooy dañu ñëw ngir safar bi nga xamante ni dégg nañ mu koy def euh, muy taalibe seex kenn nataable wu ko muy def safar woo ay xaritam woo ay am di jàmmam woo ay njegeñaaleem ñu ñëw ci safar bi ànd ceeg moom waaye teewul xam nga wasaare rek fépp fu ñu dégg yu mel noonu dañuy daw lu mu gën a gaaw indi ko dégtal ko ñi nga xamante ne moom mbokk internet parce que lu rafet rek moom moo jar a wane sëñ Mor maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum baa ji maa lay fay baax. Hmm. ginnaaw boo ma sant yàlla ju si yéente bi sant sama ñaari waajur. Hmm. di sant sama yaakaar àdduna ak àllaaxira mi sëñ Babacar Si. Hmm, di yàlla yàlla yokk leeram. taal si barkeem. di ziar waa Touba. ñëpp bu tedd weeru mag bi nekk mu weeru safar. ñaan lépp si ñaar yàlla na ñu fekkee at yu bëree bëree bëri. suñu borom doon ñu sutura. si barke Sira Mohamed. gërëm mbégte bu baax ak kontaan bu baax. si teew bi ngeen teew fii. Euh, mbiri diine moom euh, am na ci ñoo xamante ni euh, kenn du leen laaj lan moo waral safar wi. ndax taalibe seex nga loolu kenn nataabale wu ko mais li la li la kii ba nga ba nga ànd ceeg safar wi def ko comme ni woo ay say xarit say njëgañaale berne leen ci kër gi maanaam loolu lan la. waaw baa ji maam Maodo mooy Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba mooy maam Maodo. Mhm. Touba ak Thiawane. Mhm. kenn mu leen a taqale. bilaa yu mi diin. koroo ñëpp gis nañ suñu xalifa général bu tedd bi. lu mu def. seen sir Moutar. jël cent millions yóbbu Thiawane. loolu àdduna yëpp yëpp ko rafetlu. man ñëpp xam nañu taalibe Cheikh la yaakaaruma ku lu sëñ Babacar. waaye kenn Serigne Touba. liggéey bu rëy bu mu demoon. moo waral tey ñun ñëpp am mbégte. Mhm. mooy suñu mbégte jullit yëpp. Mhm. yëpp mhm. moo waral tey sama xol sedd. ma xam ni mbiru sëñ Tuubaa amul tànk ginaaw tànk kanam rek la am. ma woo samay xarit ak samay am di jàmm. def ay berneel pour ñu màggal bis bi. ñaan lépp lu ñu si ñaan suñu borom nangu ko te xam nañ li ñu si def ren su déwénee di lu ko ëpp. soob ñaan màggal Tuubaa gi ñuy dem yàlla na jullit yëpp dem ak ñëw ak te lépp lu fi ñaanee suñu borom nanga ko nit warta soxor tey waru ma ne man murid laa rek du ma dem Tiwaawan waru ma ne man tijaan laa rek du ma dem Tuubaa ndax fépp fu baax ne da ngay dem wuti ko Sëriñ Tuubaa bu muy dem si liggéeyam bu rëy boobu àndul ak bàyyi kenn àndul kenn moom képp moom dong demoon ba suñu borom fay ko tey moom lu mu am kon nag ku mu neex da ngay ñëw bokk si ku mu naq rek dee cant gi ñuy cant Serigne Touba si mim réew. Mhm. ku ko bañ rek da ngay dee. ndax lu ko yàlla defal. Mhm. ñun tuuti nañ si fay ko. day gën a jëm si kaw. a wàcc. Mhm. am ay magum jine yu baax. am ay magum jine yu tedd. kon nag nit day am wéeruwaay. nit day am wéeruwaay ku ne wéerul fi nga yaakaar. te bul ko xas kenn. dëgg xas kenn. te bul xas kenn. du moom. kenn moom. am na solo am na solo parce que euh, sëñ Mor euh, bi ma fiy ñëw. Euh, ni ma la fekkee woon macha allah tey gis gisaat naa leneen ndax bi ma fi ñëw maa la fekkoon nga sol jasneer bu marron mais tey maa la gis nga maywaat beneen boo xamante ni bu kaki la macha allah ñu ñaw ko ñaw bu bu rafet nga def ci sa trois morceaux. Mm-hmm. temps yi daa mel ni gaa yee ngi yónnee de. waaw ñu ngi sant suñu borom ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax. Hmm. nit lépp lu muy liggéey da si ñaan yàlla avancement. Hmm. te avancement ak yoxtu li la koy may mooy jub. Hmm. ak fulla ak fayda ak xam li ngay liggéey. parce que ku yokkul nag yaa wàññi. te yàlla dogal nañu ba ngeen fi ñëwee ak tey ku ñu xamoon démb xam ñu tey. xam ñu suñu borom def nañu sutura. te mbiri gën naa am tànk kanam. ñu fexe di def lu rafet di wax lu rafet ba si làmb loolu la am. ngay génn wax mbër bi day daan benn sañ génn na du daan ne diw day lii loolu amul njëriñ ñoo ko ku wóol sa bopp rek yoro sa kurus nga ñaan kii ñaan après ñu xool kan moom dëgg parce que ñaari ndam ñooy dugg mais benn mooy génn te bu ne diw mooy daan kii ne diw mooy daan après àdduna bi yëpp seetaan nan ku ne dëgg na leen mm. fii ba ilaa yomi diin barke Seexu Tijaan du ma ni mbër bii mooy daan mbër boobu dañu daan ko mm. ba ilaa yomi diin laa ah man de en tout cas wax nga ma <laughs> wax nga ma ñaari combat yoo xamante ne bi ma wax moom noonu la demee da nga ne ma combat bi du mat une minute combat bi bi ma ko xoolee quarante cinq secondes la def muy diggante franc ak ki nga xamante ne mooy bébé Saloum loolu moom bokk na ci li ma yéem ma jékki-jékki gis la ci stade bi mais beneen melokaan nga sol euh, yére bi ma la gis nga sol ko boobu da mel ni ku delluwaat nekk gone. waaw parce que lu ne ak jamono bu ne ak si xew. su fekkoon doon naa ñaanal mbër mi daanu. wala may ñaanal équipe football mi perte. wala may ñaanal nit mi wuti du ko am tuuti jamono bii. parce que nag xaar day weesu mbote. bu ko weesoo rek di bëkkee. Mhm. te lu regg day bëjantu. Mhm. fi ñu jàpp nañ ni regg nañ mën nañ sëkk liñ doon ndax ku ñeme rek dañ neex bu mu ñun bu wax ñu du yomb Franc Bébé Saloum am na ñu ma ñëw asad parce que am na lu ma suñu borom wan si nit ñi. Mm-hmm. ñoo xam ne ñu ngi yàq ñu bari doon ñaanal Bébé Saloum pour Bébé Saloum am ndam. Mm-hmm. mënoon sama kër mais damaa déplacé wu ñu que xam naa li ma wax kenn du ko xajamal dama ne su fekkee dinaa yóbbu mooy asad muy daanu dootul jamono yu ñu toll nii. mais sëñ Mor euh, li ma jaaxal mooy sortie bi nga defoon ci wasaare làmb bi euh, ñu bari dañ ma doon woo di ma laaj sa numéro ñu bari di commenter di laaj sa numéro est-ce que du loolu moo tax nga nga bëgg buzz euh, woo ñu ñëw ci sa safar bi nga continuer di wax ni làmb ji dootuma wax du ma wax lenn loo xamante ni wala ma gunge mbër muy daanu wala ma ñaanal est-ce que du doon koy wax pour mbër yi daw ñëw ci yow. <laughs> waaw waxoon naa ko nee naa la ñun soxlootuñu ndax yàlla def na te Sénégal bu dee 100 pour cent 95 pour cent xam nañu diaspora bu dee 100 pour cent 95 pour cent bi xam nañu ñi ngi am nu suturoo bu baax a baax a baax baax yàlla sutural nañu bu baax a baax a baax a baax mais dañoo xam suñu bopp. Hmm. duñ caaxaan xam tañ fu ñu teg suñu tànk bu baax a baax a baax a baax te lu ñu wax duñ ko waxaat yàlla seede na ko soxlaw ma mbëri pour daw si moom ndax maa ngi liggéeyal ñu ëpp alal mbëri footballeur ñëpp xaalis mbëri maa ngi jëflante ak ñoom yi. ñëpp xaalis mbëri te maa ngi jëfante ak ñoom mais ragal pecc day xam ne wërsëg. Mhm. dama ne man mbër bu ma yóbbu esat mooy am dam ndax man tëdd ma di nelaw soxla ma sa xaalis maa lay jël yóbbu la ba biir esat toogal yow si esat bi xam loolu moo gën a wóor. <laughs> sëñ Bas man waaru naa tey. du du du fay daal du fay gratuit. déedéet sa xaalis. balaa ba ji yàlla seede na ko. soxla ma si dërëm jël sa xaalis waxaan nañ bu jubóo jël sa xaalis ba dem laa ma jël xaalis kay moom si bi bi may ne fa xaalis ne ba esat suñu daanee ma jël sama xaalis ñibbi si parce que xam naa ne ala ku leen yaay am ndam buñ ko bëri woon cent vingt mille bëre doo daanu. <laughs> sëñ Mor xam nga vaar vaar xam nga ko. bu baax lan mooy vaar. ku waxta li nga wax nekkul dëgg ñu yóbbu la vaar wala lu may vaar. Hmm. man vaar bu may xaar dina xaddi ndax du ma ko ñu yóbbu vaar. man de sa combat si combat Bébé Saloum euh, ak Franc bi nga waxee ñu bari commentaire nañ ci suuf ne vaar ñëw na vaar ngi ñëw vaar ngi ñëw mais keroog daa mel ni vaar mujjeewu ñëw. waaw xam nga Sénégal ñu bari booy wax leen rek lañ soxla nga fen mhm. ñooy déglu ñu baree bari ba loolu lañ soxla. baa ji man duma koy wax si làmb muy dañ. wala ak su lu mën doon kuy commentaire ak kuy wax nag billaay wallaay bal naa ñëpp jégal naa ñëpp ku ne waxal lu la neex sama der mhm. man jégal naa la ko mais li ma wax ba ilaa yomi jiin ñoom dinañ ko ko dindi du am léegi ñu ñëw ci Balla Gaye euh, ak Gris Bordeaux combat boobu dañ ne yàqu na parce que promoteur bi tëggoon am ji Gris Bordeaux daf ko war a delloo 10 million combat boobu est-ce que dina am moo Gris Bordeaux Balla Gaye combat Gris Bordeaux Balla warul nekk sa combat bu yàqu combat bu neex la. ñoom ñaar am na ñu nu mu demee woon. Balla Gaye am ñu mu jëlee ndam li ndam moom noo ko amee ndam la. ngir boo taxaw ñu dafa bëgg ñu leeral. ba ñoom ñaar ku ne jotaat avance yàlla suñu borom def lu muy def jàpp naa ne combat bi amit Gaston du ko tëgg moom. benn koy tëgg. combat boobu amit du ko tëgg. combat <laughs> la daa ànd quoi dina am moom du yàqu moom. Hmm. waaw. combat <laughs> boobu du yàqu dina am du yàqu de. Sa Garga Mbossé. Sa Garga Mbossé tamit yàlla na ko yàlla taxawal. Hmm. yàlla taxawal mais man su ma doon Garga Mbossé si guddi yi ma toll balaa maa jël xool xoolaat ko su ma doon Garga Mbossé ma daay ma ko Garga Mbossé balaa maa jël Sa dinaa ko xool xoolaat ko. lan moo tax mystique. waaw guddi yu ñu toll nii Sa Thiès moo gën a pare. fi ñu toll nii Sa Thiès moo gën a pare. Garga nag koo xool xam ne daan la pour mën a bëre la ku am yar la mais su ma doon moom balaa ko ma naa xool xoolaat ko waaw naa ma nag da si daanu. Hmm. néew ma da si daanu mais su ma doon moom laa hmm. dinaa xool combat bi xoolaat ko balaa ma si dugg ma doon la dinaa ko xool xoolaat ko parce que Sa ñëwaat pour daan de. Hmm. waaw. ci défaite de la jógee contre Boy Niang 2. ñëwaat pour daan de ku mu mën jël moom di nga am problème. guy gi rëg rëg. waaw combat bu doy waar rek noonu combat bu neex tamit mi ngi noonu. <laughs> bàyyi lépp gu wax waaye. <laughs> ah sëñ fii lépp. wasaare lay xewee te damaa bëgg mbokk yi seetaan wasaare làmb euh, di di di di dund bu baax a baax baax cent pour cent làmb parce que ku wax làmb wax ñaankatu làmb mm-hmm. ku wax làmb wax xarfa xuufa parce que mbër balaa muy jël avance ci sëriñ si lay njëkk a ñëw. Mm-hmm. bu jotee avance ci sëriñ si lay mm-hmm. dellusi bu làmb ji jub see mu ñëw ci sëriñ si bu làmb ji jeexee mu jugee ci mu ñëwaat ci sëriñ si. Mm-hmm. kon mën naa ne daanaka sëriñ am na importance bu baax ci làmb moo tax looloo tax man la waxal rek. waaw combat guy boo xoolee avant moo taxaw. Mm. bët na coow trop trop sax. Mm. rek nekk mbër kaamil. su ma juumul amagul defee si làmb ji. guy gi nekk mbër kaamil. su ma juumul mbër gënoon a të mu doon dans làmb ji. kenn du wax galaaj di bàyyi rek rek. kenn du wax galaaj tamit di bàyyi guy gi. combat bi amagul date de. waaye guddi yu ñu toll nii guy gi taxaw na de. guddi yu ñu toll nii guy moo nga jekk rek rek. guy gi moo jekk moo tax ndeysaan xam nga rek euh, am na loo xamante ni mbokk internet yi dañ koy tënk Euh, ba beneen parce que xam naa ni la ñu bëgg a wax ci làmb ji yëpp comme làmb ji yeggseegul saison bu ubbeegul yu bari duñ ci mën a waxtaan euh, mbas mi moom fi mu toll nii ñu ngi doon wax ci ay bi ñuy commencé ay mille et quelques cas léegi dem nañ ba dix cas la ñu wax dem nañ sax ba nee nañ léegi journal boobu ñu daan def ci ci ci mbas mi bu ñu xëyee naan temps de cas tant de cas am na. Mm-hmm. léegi moom bàyyi nañ ko kon daanaka mbas mi daa mel ni mu ngi nekk ci tànk tàggoo. Mm-hmm. génn réew mi. waaw mbas mi ñu ngi ñaan yàlla mu ko fi indi woon. Hmm. mu jëlee ko fi si barke Mouhamed. Hmm. parce que li may wax rek mbir Sëñ Tuubaa moo doy waar. Hmm. kenn du Sëñ Tuubaa. soo xoolee avant moo ñëw safar gi di ñëw. mbas mi bëri woon na lool. lebi woon na réew mi lool. waaye ba annoncé 18 safar. lépp jël na ginnaaw. mu lay wan ni. Serigne Touba daal kenn du moom. Hmm. liñ ko may ñaanal mooy yal yàlla yokk leeram bu baax. Hmm. te tax ñu si barkeem. Hmm. mbas mi yàlla na fi jugee. yàlla na fi jugee yàlla na fi jugee. mu jax tax ñi continuer seen activité mbënd mi tamit nga baal ma rek. na état bi gees doomu aadama yi. na état bi gees nit ñi. ndax. bu bëggee nguur Macky Sall ba mu nguur gi mm. dem na si waa kaw gi mm. dem si waa taax yi mm. ñëw ndakaaru lu ne mu wax ko lu ne mu diggi ko ngir bëgg nguur rek te nag ñooñ suñ ko falee yàlla daf ñooñu delluwaat nag si ay jafe-jafe na leen geesu diggaate amul njariñ dinaa leen defali dinaa leen defali amul benn njariñ nan bàyyi lu xew ñu jël ceeb ak di leen ceeb ak di yorul kenn nan xool ñi si ay conditions yu nekk ñu dimbali leen ci yàlla rek tax. ndox mi ne Kër Massar. métti loolu nit ñi waa dëkk mënuñu ko faa jëlee. maire bi mënuñu ko faa jëlee. état moo ko mën a jëlee. te am na ay moyens yu mu ko fa jëlee. balaa ma koo def commune wala dara na fexe ndox mi dañ fa ba pare. soo gisee nit ñi amatuñu fu mu dëkk. di faral ay mbedd ñu leen defal ay tànn si ay mbedd wala si ay école. loolu ñaaw na. ñu yoroon seen kër def fa seen meuble def fa seen la def fa seen lépp ñu perte presque Mm. loolu mett na. Mm. te ku si bëgg réew mi wax wax wax wax wax wax ba sa ci saf ñeex. Mm. buñ la falee nga def yëf yaa ma neex moom Macky Sall. mooy peeru nason bi. mooy papay askan bi te njiit day am yërmande. njiit day jëlale njiit day jégale. ñu ngi koy ñaan ngalla nga dimbali waa Kër Massar ak fépp fu mën a am. te yàlla rek tax parce que maire yi mu ñu dara. dëkk bi tey mënuñu si dara ñoom bu ñu amoon doole ñoo ko defal seen bopp. Mhm. mais amuñu doole kon na leen gees bu baax dimbali leen bu baax parce que loolu moo tax ñu teg ko fi. Mhm. teguñu ko fi sax pour ñaan ko dañ ko teg pour mu liggéey par force parce que def waaram la. Mhm. waaye comme que kilifa bay wax mu na wax ak moom. ñu koy ñaan mu dimbali ñu si mbënd bi man dëkkuma Kër Massar. ndenoo ma sama famille indi mais xubbul wataleen minal iman bëgg sa te ñu mun ñoo am si àdduna lu gën Sénégal mhm. suñ soon benn doomu Sénégal du nekk si ay jafe-jafe suñ soon benn doomu Sénégal du nekk si ay tolof-tolof ñëpp dañoo bëgg nekk si jàmm mhm. kon ngal eh, na yàlla def ko sax doon télé ñi fay liggéeyee mhm. muy ku mënti doon yàlla yàlla yokk ñëpp yàlla sàmm leen aar leen sàmm seen njaboot yàlla musal leen te nag ñu ñu ñaan ñaan ñu ko pour ñaan laamat mm. dañ ko ñaan tibbee ko suñu xol mm. te ñu ngi koy kitaabu si yàlla ne mm. képp ku liggéeyee wasaare xool ñu mu ba déwén mm-hmm. yokk rek ma xaaj képp kuy liggéeyee wasaare laam képp kuy liggéeyee wasaare laam na xool ren ba déwén ba mu benn changement rek ma xaaj ñu ne ay taalibe Cheikh lan mm-hmm. te rus nañ wax nag sul noonu. kenn yarewuñu ko. Hmm. ñu yaakaar mooy sëñ Babacar. Hmm. te ne woon na gor. Hmm. du tiit. ba fenn. te ñun ñoot ñi li ñuy wax lu wér la. ndeysaan. te heure bu ñu téye suñ ko dina leen si boole. incha te dox leen ñu dem. ak yaa ngi dem. wasaare làmb sa kaw. jërëjëf Serigne Mor at yaa ngi dem wasaara làmb ca kaw euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di ko tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko loolu lañ leen indiloon tey euh, ci wasaara làmb ngir bëgg Sénégal gépp jot ci ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf. jaajëf sama